mooy kuréel gi sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke tànn ngir ñuy saytu aka toppatoo mboolem lu aju ci liggéeyu sëriñ Abdoul Ahad ci wàllu xam-xam ak waxtaan ak ya ci aju yëpp ñuy saytu itam mbooleem lu war a jëm ci màggal gi ci lu ñuy jariñoo ci wàllu ruux ak xam kuréel googu nag ci ndigalul sëriñ Sidi ñoo ñëwati ngir waajal màggal gi berndeel yiñ leen daan berndeel ci wàllu ruux ak xam-xam kuréel gi ànd ak yéen fas yéene leen euh, indil tomb yooyu mu daan ànd ak yéen ci ay témoignages ay fàttali yu jëm ci sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ngir ñu nafar ko fàttali ko ay jikkoom ak xam-xamam ak i jaar-jaaram nu ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Mokhtar ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno ak bokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi ndiki sëriñ Abdoul Ahad Diakhaté mi jiite kuréel gi ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Maam Asta ak bokk yiñ ko àndal yëpp. ñu ñëw nag tey fii sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadil di kenn ci sëriñ Abdul Ahad waaye itam di xarit ci sëriñ Sidi di borom xam-xam macha allah nu bëgg mu dikkal nu ci diggante sëriñ Abdul Ahad ah, lan la nuy indil ci moom ci ay jaar-jaaram ci ay jëfam ci ay jikkoom ci ay meloom ak digganteem ak moom waaye itam diggante sëriñ Abdou Lahad ak alxuraan nu fas ko yéene dalal moom incha allah teewlu waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ñu ngi leen di ziare bokk yi tedd yi fi teew yëpp di teg ziyaare bi ak nuyoo bi nag ci boroom jataay bi ak boroom màggal gi kilifa màggal gi mu di Cheikh Mouhamadoul taxa ndax mooy kilifa ak yoon bépp mooy Serigne Touba ñu ñaanal ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér ba muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko ci sago te nu fekke te ànd ko moom ci barke borom Touba noonu ñu ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ko ñaanal Serigne Sidi Mouhamed Serigne Sidi Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad mi kilifa kër Serigne Abdoul Ahad di xalifa Serigne Abdoul Ahad ak njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp rek góor ak jigéen mag ndaw te buñ tuddee sëriñ si di tudd soxna may laxat rek ñu yóbbaale ñu ci des ñëpp suñuy bokk lañu suñu wëlër lañu suñuy mag ak suñu rakk fa nekk ak suñu xarit ñu leen ziare ñëpp ziare sëriñ Abdou Lahad yu tedd yi fi ñëw di leen gërëm ci liggéey bi ñu boole ndax itam Cheikh Abdou ku koy liggéeyal ku la ci boole bëgg na laa dimbale ndax moom dundam nga lépp ab liggéeyal Sëriñ Tuubaa la woon dundam nga lépp ak Alxuraan la woon dundam nga lépp ak murid la woon dundam nga lépp lu baax la woon kon ñu leen di sant ci loolu bu baax a baax ñaan ñu tàbbi ci ak bismillaahi rahmaani rahim te jeexale ko daanale ko ak alhamdulilah rabbil alamin eh, ndax eh, léppam di doon yiw tabarakallah mooy wax nag wax ci moom nag yomb na jafe na yomb na ndax loo wax ci lu baax rek la ci des ko ëpp mi ngi mel rek nga fekk géej nga tànq ci kook la ci des kenn xamunatul par rapport li nga ci jël moo tax wax ci moom yomb ci wet googu loo wax ci lu baax loo xalaat ci lu baax ci ak jub ak baax bëgg lu baax dimbalante bëgg lislaam am dignité xam boppam ci lu baax loo wax ci lu baax rek ma nga ci moom waaye jafe gi tam lu baax la ci des ko ëpp moom bu ko defee muy lu jafe te yomb en même temps kon bu ko defee xanaa dañ ci barkeeloo benn benn kàddu rek eh, yoo xam ne kàddu yu barkeeloon ak kàddu yu feeñal yéene waaye li ngeen may li may wax yéen a ma a xam sax xanaa da a baax rek waaye eh, moo tax ngeen sagal ñu kaddu gi waaye li ma ci wax lépp yéen a ma gën a xam muy koo xam ne ngeen ko xam ne dundam nga xañ na gudd na gàtt na eh, ndax boo ngeen xoolee soixante quinze ans la dund 1914 la fi ñëw njaareem jóge fi 1989 ci Touba Belel donc 75 la wa umri ilal jinaani aidu ndax daanaka 75 jëm 76 ans la la la fi dund waaye dundu góor fees nag macha allah fees ci liggéey fees ci fulla fees ci ak njub fees ci yaraate fees ci jàngale. Eh, eh, ñu mën a wax ci moom ci côté yu bëree bëri digganteem ak njaboot gi digganteem ak mbokki jullit yi digganteem ak njabootu boppam digganteem ak dëkk bi digganteem ak islam bi digganteem ak alxuraan nga xam ne mooy thème central màggal gi lu ci dem ñu mën caa wax lu baree baree bare eh, li ci li li ko gënoon a ñor muy liggéeyal sëñ Tuubaa te naka jekk noonu noonu la ma sabal ak ko xam may ko xàmmee ak ràññee adduna goo xam ne damay wax na Cheikh Abdou Lahad homme d'état la ko mënee waxee noonu ci waxee ngir leeral kàddu homme d'état mooy ku gérer mbooloo moo xam ne nga xam ne nga leen teer da leen di sayto xam fa nga leen jëlee xam fa nga leen jëmee te di ko def ci lu leer nekk un grand communicateur ngeen baal ma ci waxee bi maanaam mu balleex la wax wax wax kàddoom macha allah ñëpp xam nañ ko bu mosaan wax bu mosaan tàmbali rajo bi ñu ne Cheikh Abdoulaye wax rek bu ne asalaamaaleykum wa rahmatulah ba ñëpp daan teg moom murit ak ku dul murit ak ñëpp daan teg déglu muy wax ndax wax ji am solo am maanaa di dëgg goo xam ñëpp tey mën a jëriñoo mu koy def façon boo xam tam bu yéeme la da damay wax ne Cheikh laa ni mu maîtriser commune technique de communication dafa yéeme bu ngeen xoolee discours léegi rek discours bu ci nekk rek ni mu koy ni mu koy taxawalee waxuma la wax ci biir waaye forme ba def introduction def développement def koy partie def conclusion nga xam ne discours yi ko ne mos a def ci àdduna noonu lay mel dama mos a am benn xarit ndeysaan ca ca Maroc muy def thèse sur le discours du roi Hassan II ne ko ah, am nañ ko xam ne boo ko xamoon de doo def doo def thèse ci Hassan II <laughs> waaw ah, ndax keer na ni muy waxee eh, boo ko déggoon da nga xam ne Hassan II jàmbaar loolu waaye bokkuñu sax bokkuñu waaw yàlla mayoon ko itam li ëpp ci discours am néew na nga gis xam laa di waxtaan yor ki wax yor kayit waaw bëriwul xam bu fekkee am na bëriwul <laughs> bëriwul te biir wax jooju na mu koy agencé waxuñ dara waaye ak ay ni mu koy defee loolu dafa yéeme yéeme koo xam ne loolu doyoon na waxtaan waaw ay alxuraan ji ni mu defee ak ak ab yit bay yit sëñ bi ak xadis yi koy waxee dafa yéeme day mel ne buy wax aaya du ko xalaat day mel ne aaya ba jékki-jékki ñëw rek ne ko wax ne wax wax ma <laughs> wax wax ma ndax ba nga xam ko alxuraan sax bëgg def istishaar ci alxuraan waaye da ngay taxaw xalaat waaw alxuraan nag ni bare waaye moom du du waaw lu bëgg indi rek da ko daan indi saasa dama ko indi ñu ci nettali xis bu gàtt ba dama jàll ci benn point ñu eh, dafa am benn aayit eh, wax mu tabaski loo correct am ku jël si julli gi ndeke manière fan bu mu ko jël si am na lu ci xaw ayib mu mu enregistré ko booy bëgg dem nag di ko tàggu si pour pour mu pour dem xam boobu direct yi def xëy dañ koy enregistré ko Dakar def montage doon bi mu ne bay bëgg gont nag mu seetlu ne ndeke lim lim jël ci baaxul a jaaxle na ko wax bi sëñ Modou Maam ñoom fekk ne am na ko jëloon ci ba nga ma jot bu baax mu ne ko ndax la borom jëlee mu ne ko am mu ne ko na indi te ñëwaat mu indi ko nam ko waxee woon ci penc ma la ko waxaawaat ci néegam <laughs> te la ci suba la woon lii lii ngoon gi nee bi ñu comparé ñaari ñaari wax yi dafa mel ni ko da ko da ko transmettre ko copier rek so sotti ko ci benn cassette bi nga xam loolu ak may la waaw kilifa bu baax nee na daan wax ne sëñ Abdou sëñ Abdou Lahad di eh, eh, ni muy def alxuraan eh, luñ ko sol la waaye ba ñu nekk ci daara gi nangam ak nangam loolu rek doo ci sañee àgg moom li <laughs> ñu ko sol la waaye ba ñu nekk ci daara gi nangam ak nangam xam ne ni mu defoon képp ko xam xam nga alxuraan ko daan defee dafa yéeme waaw muy personnalité boo xam ne tam nag euh, damay wax ne dafa dem ba créer li ñuy wax lugam lugam ci yoon wi lug moom mooy baylaat ba baylaat moom ku ko sol nga xam ne la suñ yi ñu sol yëpp rafet na kaar waaye ku na koo sol da ngay gis chrétien sax dañu sol grand bu rafet dul seen mbaxana wengal seen def naa am def yëpp waaye bàyyilaat moom murid rek koy sol waaw <laughs> bàyyilaat moom ko ko sol li nga xam ne murid la loolu dama wax ne mën na ci am brevet d'invention xam ne couturier yu mag yi ñu def di inventé dara ñu leen cay euh, enregistré ko muy dem ci sa tur bàyyilaat na ko def ndax day yëri yu cosaane yoo xam ne ko ko sol la ñoo xam ne mu murid nga te bi nekkul Sëriñ Tuubaa dawa ko sol nekk na Sëriñ Tuubaa ab diiru solu ko dafa jékki-jékki dañoo xëy rek gis mu koy sol te moo ko inventé taay beeg ni mu mel ak poche yeeg baat beeg yëf yi nga xam ne adapté climat bi xewal bassin yi nga xam ne gannaaw yàlla bassin moom war nañ ko war nañ ko jox droit d'auteur ñoom itam ndax ni ñu ko la ñaan sol ay ay pëppali nag ay ay perkaal ak moo ci ba bu ko njiit ko doon waaye moom ni mu ko xewalee moom far ba ci kol sax mu def ko bassin far waaw ba noppi indi indi indi coupe bi ñaw bi muy muy yéeme di culture murid boo xam ne foo ko soo ñu xam ne murid la indi personnalité murid boo xam ne am na jamono na uh, uh, diggante yoo xam nekk fa de daan xaw a doy waaye ci nekkam li ñu ñemee nag ñeme ñeme goo xam ne ku nekk murid dafa ñeme ndax boobu ni ko fësal ak ni mu ciy doxee koy wanee waaw muy loo xam ne lu yéeme la boobu côté képp boo ci yemoon muy tam doy ne ndam nga xool yoon yi ni mu ko delloosee suñu Fallou Mbacke daana wax ne moom dafa dafa lewet mu ñi dañ ko miin ba maam la waaye bàyyi dina ñëw yar leen fi ne boo seetloo àdduna sëpp bàyyi laat la ñuy wax loolu kenn ku ne maam laat <laughs> ñu seen maam sax duñ ko wax maam waaw loola eh, la la magam ju baax ji ne woon man maam laam ñun ngeen mu noppi waaye bàyyi dana ñëw yar leen waaye dafa ñëw ñëpp xam ne yar nañ waaw ndax raxas bu mu def ci yoon yi def ko ci dëkk bi moom kéemaan la xam ngeen ko baax li bëgg wax dëkk bi am na jamono doyoon na waar lool yu bari bari xewoon na fi daana na fi xew waaye moom bi mu ñëwee ni mu ko delloosee nga xam ni fi ñu toll Touba am na certificat boo xam ne ci àdduna mooy bu nga mën a wax zone non fumeur bi gën a rëy ci àdduna si mooy Touba adduna si dem di dem ba da nga xool na jiitoo jiitu woon àdduna jëlee naa sax charia bi ko jiitu woon nga xam ñëpp xam ne xañ na euh, pon la ñuy wax waaye sàngara ak yooyu kenn kenn wérantu ne dafa wax ba tey bind ba tey dama ci waaye waaye cigarette rek ak pon mu xam ne léegi àdduna si dafa dem ba baar ba baar yi xam na ma jëlee oto yeeg saxaar yeeg barab kii mais baar yi sax da mu leen anticiper ni mu leen jiitoo dëkk bépp mu aaye ko fi nga xam ne dañoo bu ñu xool zone non fumeur bu gën a ci àdduna si mooy Touba dëkk boo xam amul cigarette wala koo fi def da ngay kon bu ko defee loolu di di di ndam loo xam ne eh, liggéey nag Sëriñ liggéey bi rëy a rëy liggéeyal ko ci taalib yi liggéeyal ko ci njaboot gi liggéeyal ko ci dëkk bi dëkk bi nag moom dañuy wax ne foo gëstu gis lu seen laa def su fekkee lu def lu ne wax tey foo romb da ngay dégg daan la maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi waaw ji dëkk bi ci daara kaamil ci bi kër Sëriñ Tuubaa gi lotissement dëkk bi yi lamp yi mu armel yi armel yi bees mu defarlu loolu lépp rek lu ci nekk rek réalisation la yoo xam ne eh, yéeme na ci réalisation yooyu dinaa ci wax kese bu doy waar te léeg-léeg ma koy faral di dett bi eh, ndax njàmbaar gam ci def ak doylu ga ak fitu ak xam sëñ Tuubaa dafa am benn eh, eh, benn mbokk nekkoon ko Abdoulaye Doucouré dafa nekkoon mudir maktabil iqlimi rabita alam islami ci Dakar ma ligue islamique mondiale nekkoon bi Dakar moom dafa dafa jaxasoo nag benn ambassadeur bu Arabie Saoudite bu nekkoon Dakar ku ñuy wax Abdourahmane Al Toubéch ñu ñu fàttali ndeysaan nee na bi fi seen nekk nekk ci projet yooyu maanaam bi muy jokkale jumaa ji tabax daaree kaamil defar waa Hizbut-Tarqiyyah di defar Aynu Rahmati mu defar kër Sëñ Tuubaa gi defar université bi ambassadeur bu fi nekkoon Dakar ko tudd léegi ndax faatu na yàlla ko na Dakar fukki ñaar mosut ñëw Touba di ko dégg rek ba mu yàgg ndax li may wax Abdou Abdou Wahab Doucouré moom moo ko nettali Abdou Wahab dafa àndoon moom bi mu ñëw Abdou Wahab nekkoon directeur bureau Ligue islamique mondiale bu Dakar jaxasoo ambassadeur boobu Arabie Saoudite boobu Dakar fu mu mosaan jëm ci ñooy ànd nee na benn bis boo ko defee daa bëggoon dem Touba ndax ñoom ay suufee ndax su ko defee danañ mën a ngóoru saabu ne waaw ah, ñoom ñëpp lañu fi nekkal dañuy woote rek wutaan ñu daal di woote sëñ bi ñëw mu ñu ñëw amba bi booleel ci mbokk yi bokk nag sëñ Modou Mamoun Ñang ak sëñ Moustapha ak sëñ Saliou ambassadeur ñu ànd dem xool projet yi ma lay wax xool yokk bi ci jumaa ji xool daare kaamil xool kër sëñ Touba gi xool université bi buñ ko bi ñu toogee ba noppi ba ca ngoon bi ñu tënk nag sëñ sëñ bi nee na mu laaj ambassadeur bi nag nee na ambassadeur bi ne damaa am ñaari yëg-yëg yëg-yëgu mbett ak yëg-yëgu kersa loolu mooy lan ne ko yëg-yëgu mbetteel bi mooy am na fukki at ak juróom-ñaar Dakar mosuma ñëw Touba ndax yooyu ñu nekkoon rek ma daan dégg Touba nag da gis image di gis jumaa ji di gis photo yi mais yaakaaru moo ne agsi na fi mu ñëw gis jumaa ji di mu toll nga xam ne bu ko ne jàkk ma dina mën a war la ma fàttali yooyu li mu ci gën a yéem mu ne koy jumaa ji nekk àggoon na depuis 63 ba sa mag Mouhamadou Fadil jiite woon ko daan ko julli booba léegi ñu ko julli ajuma yéen moo ci rolo nga ko yokk gis na projet yokk bi mu ne ko ci rolo yaa ngi def daaray kaamil bibliothèque yaa ngi def kër Sëñ Tuubaa yéen yaa ngi def université mu ne ko loolu mbett mi ak ak si gigantisme bi mu àndal maanaam rëyaay bi mu rëy te mosuñu ko wax mosoo ko mosoo ko mosoo ko mosoo ko mosoo ci sàkku ndimbal mu ne ko loolu mooy mbetteel mi ba yi fi fi mu ñu benn dërëm mës loolu na kersa gi eh. mu ne ko yaa ko waxal sa bopp de <laughs> mu ne ko waaye dama bëgg dafa la am lu ñaan mu ne ko lu mu doon mu na ko dama bëggoon erreur boobu ñu def nga dimbale ma ñu soppi ko ma ñu dat baatal ko ndax kooku moom ambassadeur boobu itam ba tey ambassadeur la euh, yàggoon Dakar waaye dafa bokk ci daanaka famille royale ba am na ci rakki roi Fahd mi fi nekkoon ku ñuy wax Amir Majid moom moom ñoo bokk benn ndey nga xam ñooy Al Toubache Al ak Al Saoud ak Al Cheikh ñooñu bokk ñu coalisé woon xeex Arabie Saoudite ba créé ñoom al xam ne am na koo xam ne moom ambassadeur boobu ñoo bokk benn ndey léegi ambassadeur bi nag moo moo doon wax seen daal li may li mooy mooy réew yu li ngeen def daanaa ko dégg waaye mosuma foog ni la ak daanaa gis image yi waaye xaw yaakaar moo ne fi accident fi ñaareel ba ñaareel ba fa def benn dërëm mu ne ko yaakaar sa bopp mu ne ko léegi nag li ma lay ñaan mooy dama bëggoon mu ne ko roi France dafa ma wax ne lu ñuy def Sénégal ci islam rek boo ma ko waxee ma français jamono yooyu ñu ngi waajal OCI bu njëkk ba xam ngeen OCI bu njëkk ba saw ji ko financé fii ñuy wax King Fahd Palace euh, mu lay wax moo ko dox nga xam ne dañu waa euh, Fahd moo ko financé moo tax ñu tuddee ko d'ailleurs dañ caa sax ndax euh, ba neen ko waxee ñu ne ko amuñu fu ñu taal ay gan da a joxe projet bu ngeen ma jox ak suuf rek gaa ñi dem jox projet bu rëy lool bi ñëwee bi ñuy tabax ñu ñu <laughs> gëf këfin ko xam naa ba mu toll ne mais la roo Fahd financé woon ëpp na lii léegi nag mun si implant da dama bëgg léegi li may li may dabaatee loolu nga jox ma sa projet yi muy léegi yokk ci jumaa ji ak daara kaamil ji ak sëñ Tuubaa gi ak université bi ak ay no rahmat yi yëpp mu jox ma jox ko faatu wóoram dana ko financé ba ma jox ko sa caabi ñu ñu dabaataleel ko loola waaye sëñ Abdoulaye ci ful jël ak personnalité ba mu ne ko mën liggéey suñu Tuubaa dama ko jox kenn dama ci nekk lu ma am def ci li ma jox def ci bu mu àgg waaye dama ko jox kenn boobu personnalité kalaasu sëñ Moudou Mahfouz yi ak sëñ Moudou Lo nga ngaa bu ko waxoon loolu dañuy dem waxuma plan yi defoon waaye dañ koy multiplier par dix te boobu Fatou lu mu ko wax mu xam nga arab saudi yàlla may na leen dafa xol bi dafa rëyoon te dafa bëggul Sénégal mu su fee bëggul Sénégal waaw ambassadeur boobu nee na ma bi ñuy aussi bi daf ko ne suñ doon séddoo gi yéen suñu reer sax danañ ko séddoo ngeen def aussi bi pour nga xam fi mu ko àggoon kooku nag xam nga kooku fa teewal bu ne jox ma sa projet yi yëpp man liggéey la ko ba jox la caabi nga naan ko xalaat liggéey si ma ko joxe loolu loolu ci laa ko mos a dégg ci laa ko mos a dégg ak doylu ak doo xam xam sëñ waa mu ne ko mu liggéey suñu te du ma jox kenn dama ci nekk lu ma am def ci li ma jox ma def ci àgg jàmm waaw xam kooku kooku beneen mbir la mais beneen mbir mu jaar ci yu mel noonu nag yu bëree bëree bëri nag ci ci ci ay kilifa yoo xam ne eh, jaar naa ñoom foofu defal leen loo xam ne teraanga ja bëri woon lool nga xam daal wax ne teraanga bu ñu dul yàq day mel ni day mel day des na xam te daa ngay ñam sa bu lu ko daan defal day wax nañ tàmbale ci raxasu raxasu mi maa ngi dem fa am kilifa yu ma àndal dafa ñett nañ ko tudd sax ci ma ngi nekkoon ku ñu wax Matar mu ne ko Matar indil ndox foofu mu dem indi keesu boisson maa ngi fàttaliku gazelle ñu ñett lañu woon sañ bi ak ak ñaar ñu màndal wala ñett ñu màndal mu ñëw mu ne ko mu ubbi ko mu ubbi ñetti butéel ubbi jox ke jox kee jox ke daal taxaw mu ne ko dëgg la nga ubbi ko mu ne bëgg na mu ubbi kees gépp far rek <laughs> te ñett ñi fi nekk ñëpp xoolal ñeent ku ne na la bu nekk nag ne tekk xam nga jarab murid rek ne tekk ak ak ak ñu biir butéel yi ne ko dama la ko <laughs> xam ne teranga jëlee si jublu waaw mooy dara wax ne teranga bu niruwul yàq rek des na waaw de mooy dara wax ne da ngeen ñi dañuy def ne dama yàq nit day ñëw kenn wala ñaar mu toppatoo leen teranga dañ leen defal ñetti xar wala ñeenti xar ne xam naa ne ñett ñi mënuñu lekk mën xar sax ak teraanga suñ Tuubaa loolu da ko def ay yoon ba gis nga suñu mbokk bu ñëwee Tuubaa bu ñuy dem seen oto yi dañ koy remplir na ko dugal ci oto ba <laughs> ah, loolu na ko ba tay ba tay waaw ah, def ko ba tay eh, yàlla nag xel moo xam tam damay wax ne kii kéemaan la zaka o aqli mi saara mis la wax yi am na fu ko sëñ bi waxee loolu sëñ bi rafetal na ko waaw ni mu li mu xam kaar ak li mu am ci ko ak li mu xam ci xam nit moom dafa dégg ni sax dañuy ñettee daana wax ne su ma nit di wax ci biir nopp nangam loo xam ne am du dëgg day mel kenn keneen damay wax ci benn nopp ba li muy wax di amut <laughs> nga xam ne xam nit ñi xam goo xam ne te loolu expérience bi la dafa bari fu mu jaar xam adduna xam xam xam xam diine xam sëriñ bi bëgg sëriñ bi fonk sëriñ bi waaw kon bu ko defee ñu mën a wax ci fasciné réew mi nag maanaam réew mi ñu ci ñu ci fasciné du caageenu murid yi rek du caageenu njaboot gi du caageenu dëkk bi waaye réew mi la la la la la fasciné dafa am benn euh, euh, euh, mbokk irakien boo xam ne ne fi mu njëkk gis sa photo Sëñ Abdou Lahad kooku sama sa fa ñëw gannaaw bi suñu taal waaye li ma ñu facilité nit ñi rek jëmm ji nee na dafa nekkoon coopérant fi ñuy wax centre Afrique nee na bu fa nekkoon ambassadeur soo taalib bi mu rek waaye mu tam Sëñ Abdou Lahad ci saalam coopérant boobu professeur la ci université Bagdad en même temps di imam ci jumaay Cheikh Abdou Khadir Jilani nee na bi mu ñëwee mu gis ko nee mu muy xool fa ne ko kii ku mu doon kii di yàlla kan la nee na mu commencé expliqué kii doomu Cheikh Ahmadou Bamba la mooy Cheikh mu ne kii de xuma kan la waaye nit ku baax la nga xam ne noonu la yàlla dogale ba kooku mujj na dem a dem ba ñëw Sénégal sax ba ñëw Touba Serigne Saliou waaw waaye nga xam ne comme ba ba ba day message waaw bu waxul dara sax photo bi day message waaw rapport ak Cheikh Moudou Moustapha ak Serigne Fallou ju ko jiitu ni mu ñoom ci âge nga xam ne ci zahir am nañ ay ay ay tout tànk ay ma ma wax ay leer yu ko mag xam ci waaye ñoo ne ñoo ko a feeñ mu ne mag safa ñoo ko njëkk a feeñ ci mm-hmm. ci la Aboubacar waxoon a feeñ <laughs> ku mel ne sëñ Cheikh Mbacke ku mel ne sëñ Karim soxna mbenn Fallou ñooñu ci zaahir a ñu mm-hmm. fi woon def dañ ne boobu fu jógee nangam nangam nangam waaye gis ngeen mujj gi diggante bu gàtt rek mu àgg foo xam ne mu man la nga xam ne kon ku ñu waajal bu yàgg la kon ku ñu waajal bu yàgg la mu daan ko doxee ñu wax dafa am wax bu bu sew te xóot bu mos a wax wax na lu bari bari jaxasoo naag moom lool dañu ne Sëñ ñëpp xam nañu lu mu ñaan yàlla def ko mu ne waaye cat da dal Sénégal mu ne li cat la mooy bu ñu yëgoon dañ koy wax mu ñaan xaalis xew yi te aajo yi faju <laughs> xaalis xew yi te aajo yi faju xam nga fër-fër ji yëpp karankaran xaalis ko waral <laughs> bu xaalis xëyoon mooy aajo yi faju kon àdduna daal nekk noflaayu kese rek ba dem àjjana. kenn du jàmm xaalis. waaw waaw waaw fi mu ne coo coo lépp ci xaalis ko waral ba ci mbusul yu baax yi sax léegi baax baax léegi léegi xam nañ xaalis léegi léegi xam nañ xaalis bu ku ku ku koo xam ne dañuy dañuy wax ne full ji ak positif yi dafa dem ba wàll ko sax ñu turandoo yi dañ ci nettali anecdote bu saf xorom xam nga bi ma nekk Tuubaa Beleel da da léeg-léeg yor-yor bi day génn ci penc ma. toog ci garab bi te moom day toog suuf garab nekk du laal dara doog toog ci suuf léegi mu suunu sax ci suuf bu toogee ci garab bu ñu wër ko ba bari bari xum mu jógaat dem ci keneen garab ñu am benn bis nag mu def ko toog ci garab di waxtaan ak ñi mu xaw a xum mu jóg dem ci keneen garab benn xale di ñëw la di si ko mu ne ko bul accédé mu ne ko jëm si mu ci yow sama kër bàyyi dafa nekk fee may jàll mu ne ko loo tudd mu ne ko Abdoulaye mu ne ko waaw <laughs> ñu fi nga xam ne dafa Abdoulaye ko yam ne ko bu bu agsi nee na ngeen toog fa tool na mas mu a ko man jëm suufu ci yow dama jóge sama kër ba ñu yónni ma fii ma lay romb waaye jëm suufu ci yow mu ne ko nu tudd Abdoulaye ne ko Abdoulaye sa ji fulla donc nga xam ne fulla jooju ba wàllu ko turandoo yi sax waaw wàllu ko turandoo yi te léegi wax ko turi ñun mu nuru ko ñoom ñaari jikko loolu yoon te defe naa ne tudd Abdoul Ahad eh, bokk na ñu ko tudd waaw lu ko jiitu Sénégal moom xëy na dañu ko déggul Abdoulaye nangam nangam ci li koy histoire yeeg yooyu ku tudd dëgg moom defe ci moom la ñu ko njëkk gisee waaw moo ko jëkk Sénégal te it di ko li ko yàlla def ci turandoo ci bari na lool ñu ko fi ëpp am na sax ñoo xam ne duñuy duñuy taalibe murit te te te te tuddee nañ ko tuddee nañ ko ay ay turandoo ko defee muy koo xam ne man da yàlla dafa dogal eh, ma xawoon ko miin te bu yàgg ci Daaru Salaam xam nga suñu mbirum maam ni muy tuddee ma yaroo fa daroon xaritam donc xam nga sax ay leeram am na ci ko tudd Mouhamadou Mamoun am na tudd Mouhamadou Mamoun léegi mu daal dafa ñëw nag eh, xam nga ni mu am yërmande rek ni mu amee ñewante ak yooyu eh, xam ne gars yi ma nekkoon ci daara sax bu ñu ko séen am sëñ bi nga xam ne am eh, fi mu daan bu jógee daara jëm jëm sëñ bi dañ koy robb bu gars yi seen oto bi rek daal sa dem ànd ak ñoom bool yi ñuy jox ak xaalis bi ñuy jox <laughs> dañu bëgg ko jigéen <laughs> saa bu ñëwee ko bu doon bu doon añ nga mu ne ko waaw mu demal seet dama seet bool bee wala bu doon reer seet bool bee Euh, nga xam ne te loolu bu yàgg la année yi la 62 63 64 jëm noonu wallaay eh, gannaaw ba mu am benn mbokk boo xam ne eh, ñaari anecdote xam ne du fàtti sama waajur jigéen mu fii ne dafa am benn bis mu ànd ak mu ànd ak eh, sëñ Omar Bousso suñu mbokk mu nekkoon fii ak ak soxna ak ñu dem siyaare ji ko xam na ne sëñ du ko du ko xàmmee mu koy nuyoo kii kooku xam ko bu yàgg ci ko sëñ Fallou dégg Mourou Mamouna nga xam ne maa ngi yor fii ay lettre mu daan ñëwee vacance mooy dem dama koy tàggu ji bind ko rek man tontu yor naa ci woon ñaar ñett ma jël xarit ngeen xam dafa nekk préfet Kaolack defe eh, de bi xamu ko nee na mu ñëw fii i soxna si ne ko dama bëgg leen siyaar si am laat trois belel waaye dama xam dama xamul su ma nee mu ne ko wala yàgg fii kër sëñ Fallou dan bi ma àggee Cheikh Goubé gis ko ne ñëw toogal tur si bi dafa am ko ñu waxtaan ci garab gi waaye bu noppee rek mu yóbbu la ci nee na mu toogee mu sëñ bi xoolee feex mu de wax ko mu ne ko mu ne ko na agsi dafa ngeen ko nee na mu nuyoo kii majan xarit jënga la nangam nangam taalibe sëñ Fall nangam nangam mu ne waa ji xam naa ko bu yàgg ba may góor Daaru Salaam Tuubaa bokki barga bàyyam ñëw na fa am fa ñetti fan <laughs> te bu ñu xam xam woon naa ko kër sëñ Fall boobu day gore nag waaye xam woon naa ko kër sëñ <laughs> xam ne du fàtte maanaam xóotu zakiré bi la bëgg a wax fekk loolu moom yàlla da ko cee may waaw loolu moo loolu sëñ bi wax ne sëñ bi lii xamu ko woon bi nekkee ci daara ji waaye nangam ak nangam waaw maanaam sëñ bi lii dañ ko ko sol waaw dañ ko ko waaye lañ ko ko sol dafa bari waaw e, mu mu feeñ ci wàll gépp nag ci doxalinam digganteem ak alxaam e, doxalinam ak ñu ko wax digganteem ak njaboot gi digganteem dëkk bi digganteem ak yoon yi digganteem ak kilifa yi bokk ci yoon yi sax digganteem kilifa yi bokk ci yoon yi nga xam ne ku ci ne seqoon naa yow ay teraanga yoo xam ne bu la teralee da ngay tiit waaw bu e, yàlla waaw du ci seet ba xam yow da nga ko dellu si wala doo ko dellu wax doo ko wax da ko sant amul ci loolu da ko def ngir yàlla rek waaw te fu ngeen jaar ak njabootam nag ndax njaboot gi fa tabarakallah li ko tàmbali kenn ci lenn lu a sant yàlla la te gis ngeen daanu maanaam daanu lu ñu tudd daanu ko def nga xam ci mujj gi njabootam góor yëpp kon bu ko defee rek nga xam ne kooku ma ngay wane yoon mu ngay wane yoon wane ak bëgg sëñ Touba wane ak ak ak ak ak topp sëñ Touba wane ak doylu ci sëñ Touba waaw ndax xam nga ne ku toll ni roi Arab Saoudite comme ne jox ma sa projet yi màggaleel la ko te ambassadeur bi la koy wax wóor na ne boo ko joxee dana ko jox nga ne ko man liggéey sëñ Touba du ma ko jox kenn loolu loolu doylu mën a ko weesu loolu doylu mën a ko weesu te uh, ñu bëri bu leen ko waxoon neneen la ñuy doxalee neneen la ñuy doxalee gis ngeen li bindu ci ay kaamil li mu jàngalu ci alxuraan ak li li mu li mu def lu ci xasida yi xasida yi li mu ci mokkal ak li mu ci daan jàng dafa dafa yéeme waaw li mu ci lu mu ci def istishaad di ci seede du ko xalaat waaw li muy wax rek mel ne ko wax ma maa ngi <laughs> maa ngi nii waaw eh, moo tax ay discours rek luñ mat a mat a lu a gëstu la waaw lu mat a defe naa xel nañ ci ay ay ay ay liggéey waaw mu ngoog waaye liggéey yu yu mat yu mat a gën a xóotal la yu mat gën a ndax mën nañ cee ba tey ndax saa bu ko boo ko déggee maa nga jàng ko day mel teel a wax waaw day mel te at yi fi dund dañuy wax ne euh, euh, euh, yàgg na àdduna waaye guddul fan lool ndax soixante quinze ans daanaka ci sax bi bëriwul daan te mooy moyenne cent ñu yàlla mayul toll noonu waaye te wut soixante quinze ans yi mu dund dafa remplir boo ci dindee gis ne day mel kon li wax yàggut àdduna waaye gudd noo fan ndax turam dootu fi génn ba faaw moom te moom dootu fi far ba faaw te loolu ci lum liggéey la ci lu mu liggéeyal njaboot gi la lu mu liggéeyal sëriñ Tuubaa la lu mu liggéeyal diine ji lu mu liggéeyal réew mi waaw bu ko defee rek eh, dañuy ñaan rek bis bi tam ñu àgg ci ak jàmm di ñaanal yàlla yàlla yokk yokk yokk yokk ko yàlla gudd la fanam guddal suñu fan ñun ñëpp yàlla aar njaboot yi waaw te yàlla taas ci barkeb Cheikh eh, dafa am ay jamono loolu laa da daaneel lu xorom sama diggante ak moom la moom tam bu yàlla dogalee eh, ñu jógee ci njàng mi dafa am projet bu ñu fa xalaat waaw ci njàngaleem mu rëy rek ak ak xéem Eh, eh, maanaam ci gàttal dafa am benn projet hôtel boo bëggoon def fii Touba. def ko def nag samay plan ak sama yëf yi faa nag am sama terrain am autorisation boog yëpp amoon naa ko. mais nag bala ma ci dara nag dama ci waxtaan a sëñ bi ne sàkku ci ndigal eh, bi ma ñëwee nag xam nga kuy doo doo jóge ci ñàggum droit rek boo wax nit da ngay defee ne li ngay wax moom da nga ko mën nga convaincre <laughs> may wax ak muy muuñu rek ne ko waaw ndax day am loo xam adduna day dox boo demee a a am na ko te ñu ngi ci saaba te da ma waaw <laughs> léegi nag dafa barab yoo xam fu ñu dalal ay gan daal ndax dëkk xaw a xat xam nga suñu kër yi d'accord kala ni mel waaye day am ñoo xam tàmmuñu ko bëggoon nag fàggu barab yoo xam bu ñëwee danañ fa mën a dallu nangam nangam mu nekk mu nekk barab yi ñu yaxantu bu ñu liggéey bu noppi am dara mën cee mu déglu moom noppi ne waaw loolu de baax na lool waaye nag gan maanaam euh, euh, euh, ni mu la ci ni la ci tege ci yoon ak ak lam la ciy déel mooy yéeme mu ne gan day ñëw ak jikko soo jikko ju jikko ko soob ku ñëw jikko ju la soob nag kenn du la indi fu ñuy wattu te yow ci ñëw war a tëkk bi nga bokk loolu bu ki dem bi maa ngi xool plan bi plan ko dugal ci <laughs> dim bu wéy ba rek maa ngi xool ba xam fu nekkati laji te architecte Moussa Fall moom mu defoon plan yi Moussa Fall moo ko daan defal moo daan defal ñoo yokk jumaa ji yëpp mu rak ko Abdou Karim Fall waaw moom moom la ñu booyal mu def étude yeeg plan yeeg yëpp ba ne nag ba contacter ay banque ba ñu toog ay financement di ñëw nag da daal moom ndigal la ci des léegi mu wax a wax ba ne mu ne waaw euh, gan de mu dama mën gan day ñëw jikko ko soob ku ñëw jikko ji lu nag doo day su ko yóbbu fu ñuy wattu te yow ci ñu war a wattu dëkk bi toogal da nga daje xéewal da nga daje xéewal googu nag ak toogal rek boo ñëwee laa lem def ci teg ba léegi bi ñu ci waaw nga fa mu mu mu njàngalee. waaw waaw raisonnement bi ngay dégg raisonnement bi. gan day ñëw jikko ku te mooy li te ku ku ñëw jikko yu la soob nag kenn lu yóbbu fu ñuy fu ñu war a ñu war a dëkk dëkk bi nga bokk. ginnaaw dafa fay bu xasee fay nan dama fay sama. waaw yow def sama néeg la may def kii si yoon kenn nekku ci <laughs> waaw. nga xam ne rek ak yu bëree bëri yoo xam ne te noonu la jàngalee réew mépp nag képp ku mos a jëflanteeg moom ku mos a jëflanteeg moom noonu la jàngaleen teg yow du du bëgg nga def dara lu ñuy lu ñuy lu ñuy xebete yoon wi wala dara lu ñuy yebe yoon wi wala dara loo xam ne ko gis ne ah xanaa nangam ak nangam am na jamono lu mu ci daaneel dañu fay ndatt ñu jël moom may liggéey Lonase dama faa def semaine génn ci Lonase génn mooy daal waxuma la sëriñ bi waxuma la Tuuba waxuma alxuraan ji waaye Cheikh Abdoulaye bis mu digg na maa nga Lonase xamu lu ma ko jàkkaaroo moom ak lu ma koy wax bu ne ma loo fi def <laughs> xam nga loolu na ci li ma boobu mi ngi fi. waaw boo jël mu ngi fi. Eh, muy koo xam ne sax bi ma ko mujjee gis ak bi mu làqoo soriwul daanaka mën a wax ne semaine daanaka semaine wala ñaari semaine boobu xam nga ci koor ga xam nga ci koor gi la dem fekk ma dem fa di ko ziare ji xaw a daaj ba mu ci kër gi sëñ Tuubaa gi bi fa nekk sëñ Sàmba nekkee yi ñu doon traduire moom la war moom lay moom la koy tàggatoo moom pour ñaanal ko pour mu dem Maroc eh, bi may bëgg dugg ñu ne sëñ Mut Badar tam da ko wowoon sëñ Mut Badar tam ñoo xam nga tam ko jaxasoo nag moom la dugg ci moom yàgg lool ndeysaan ma door a dem nag joxaare ko kaamil te yàlla dama dimbali woon saa bu ma koy ziar rek dama ko jóbbul ci alxuraan ngi bi la koy teg na sëñ bu ma yóbbaale gannaaw ba sa gis naa ko mu naan ma mu doon sa kaamil bu rafet sa bu rafet na lool de mu ne ko alhamdulilah rabbil alamin mbak sant yàlla waaw léegi nag ci lañ ko ziaré noonu ci koor gi xam nga ba ñu war a rek la dem Tuubaa Belal après ànd ak sëñ Sam fa yàlla def bokk bu ñuy dem Maroc ñoo bokk avion waaw bi ñu jógee dem Espagne eh, am fa semaine dem Italie bu fekkee mu di euh, quatre-vingt-neuf xew xew bu diis lool diis sa bette lool te metti lool ndeysaan waaw bu ko defee rek mooy koo xam daal sëñ Abdoulaye ni ngeen ko mën a xamee daal mën nañoo wax lu bari bari ci ci ci tundam nañ waaye li ma wax lu nekk bu ne mën nañ ko tas wax ci lu bare bari loo xam mën na caa jëriñu waaw ci digganteem ak mbokk gi digganteem ak alxuraan digganteem ak Serigne Touba digganteem ak dëkk bi digganteem ak kilifa diine yi digganteem ak adduna sax chef chef daay ci adduna sax waaw mën naa ñoom ay relation yoo xam ne lépp relation respect ak euh, ak ak xam boppam waaw ak personnalité murit bi mu imposé nag moom waaw personnalité murit boo xam ne moom fi nekk ku bëgg nu murit sax da nga da nga sol bàyyi laat <laughs> waaw boo solee bàyyi laat rek ñu xam ne kii la waaw am na jamono loolu ñu bari dañ koy moytu boo xew a nëbbu waaw da nga koy xew a nëbbu ndax booba li xewoon booba waaw kon nag bu defee rek ñuy sant baax rek xam naa bëgg ñu gën a guddal ñaan rek yàlla eh, ñu àgg ci ak jàmm rek te liñ ci raatan lépp yàlla na defal ñu ko te yéen ñu leen sant leen sant yéen ñu boole ci liggéey bi waaw ndax liggéey yi moom ku la ci boole rek bëgg naa dimbale waaw jërë ngeen jëf sëñ Abdou Lahat moom ñëpp la waaw jërë ngeen jëf yàlla na yàlla yàlla fayal na ko te yàlla taas ñu ci barkeem wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mamadou waxtaan wi am na solo lool tabaarakallah jàngale na yeete na yaatal na itam indil nga nu wet yu bari yu wuute ci sëñ Abdou Lahat yoo xam ne mënees na cee jànge mënees na cee roye ci wàllu doylu personnalité gëm sëriñ Touba ubbiku yaatu dënn xam-xam macha allah wet yu baree bari indil nga nu ko ci diggam ak kilifa yi diine yi diggam ak bokk yi sa digganteeg moom tabaarakallah diggam ak Cheikh Mamadou Fadel waxtaan wi yaatu na am na solo lool noo ngi lay ñaanal suñu borom euh, guddal fan wi. yokk wér gi. Euh, yéene yi nga am ci liggéeyal gu Serigne Touba suñ borom may la ci kàttan ba nga def ko ni nga ko bëggee. Euh, di sant mbokk yi nu àndaloon ci jataay bi. di fàttali rek ne noo ngi waajal màggalug sëriñ Abdou Lahad ni nu ko baaxoo defee di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ko korite di ñaan nu àgg ci ak jàmm kon lii mooy jataay bi ñu bi ñu leen indiloon ci waajtaayu màggalu sëriñ Abdou Lahad yàlla sunu borom yàlla na nu may ak dégg akuk topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.